nañ ko tuddee les les cabinets noirs rek. da benno bokk yakar ku nek am nga sa cabinet. Hmm. noir am lo ci xam. deug la am loy tracté. Hmm. yaangi ci kaw ke xàcc nga sa jasi tim sa morom. c'est dommage que politique àgg fofu nag. c'est dommage. mais nak mais nak euh, Cheikh Abdou xalaatoo ne le le le le euh, ce qui a mis le feu aux poudres c'est Amadou Ba. c'est c'est possible. waaw dafa mel ne. Euh, man dama c'est deux personnes c'est Macky Sall et c'est Amadou Ba. Hmm. Amadou Ba c'est pas le candidat de Macky. voilà donc yoyou. maa wax li jàppal. waaw. Amadou Ba le candidat de Macky. kon kan le candidat Macky kon. Xawma kan la dé, mais du moom. mais yéen Amadou Ba bi Amadou Ba bi est ce qu'il dina dem élection. ah. du loo bëgg a wax foofu. Hmm, toogal Amadou Ba mi candidat. non est ce que du bàyyi. wala mu créer rupture non est-ce que créons créer rupture. comme comme la. rupture moy, xam na ça ne va pas continuité bi mu prôner, ça ne va pas. Mm-hmm. donc continuité moom erreur de.